la yawmil qiyaama mbokki jullit yu tedd yi nekk ci gox yu fasantikoo yi ci réew mi ak ci bitim réew fu ngeen mun di nekk maa ngi leen di booleeti juróomi baat yi ñu yàlla boole muy asalaamu aleykum wa wa barakaatuhu di del siwaat ci kartanal yàlla di sof ak yow li ma sosoon ak yow démb ci waxtu wi ma junjoon la ko muy wàllu lu ñuy tuddee kurus bala maa ñëw nag dama lay wax baat bi rekk kurus daal li muy tekk ci wolof war naa tax képp ku ko yàlla may nga yore ko war ngaa seetaat sa bopp war ngaa yedd sa bopp balaa kenn yedd baat bi boo jëlee kurus ak rus sorewuñ boo xasee am kurus daal war ngaa daw war ngaa soy bépp jëf joo xam ne ku la ca fekk rek da nga rus boo xasee nekk mbañ rus mu yor kurus da ngaa war a daw war sori lépp luy rusloo nit bu la ca kenn fekk su boobaa yow sa kurus googa am na njariñ la taxoon a jug kurus mu remplacer ay sàbbaali loxo yaa ngi koy jëfandikoo waaye nag su fekkee ne yaa ngi yor kurus jëflante yow rus kàddu yoo yëkkati ko ko dégg rus tabaarakallaahu foo toll yaa ngi jëf wala ngay wax loo xam ne ku la ca fekk nga rus yow hormaalu sa kurus googa la taxoon a jug kurus tamit yow nekku ci kon baat bi ci wolof loolu lay tekk li muy tekkee nag ci araab tur yaa bëri waaye tur yëpp maanaama benn rek la la shaa'ir ba ne woon ibaratuna shatta wa maanaaka waxidun wal kullu ila zaka al jamali yusiru léeg-léeg nga dem ci lenn ci borom xam-xam mu tasawif ñu tuddee ko subha ñi di ko maa ñi di ko tuddee maanaam musabbahatu ñi di ko tuddee xablul wusul ñi di ko tuddee rabitatul qulub ila allaamil xuyub ñi di ko tuddee mu zakiratu ñi di ko tuddee mu aynatu ala yooyu yëpp ay tur la yu limu yu wuute waaye boo ko seetee nga tàllal ko terañ pànce ko maanaam benn rekk la subha ak mu sabaha yëpp mu ngi bàyyee ko ci baatam sàbbaal xablul wusul mooy buum ngoo xam ne boo ko bàyyiwul rek fa nga jëm daan la fa eggale raabitatul xuloo muy lu takk xol yi jëmee ko ci kii xamaa kon yu fàddu yi mu zakira mooy loo xam ne dafa lay fàttali toujours nga mën cee dimbali ko tudd sa borom rek muina mooy li lay dimbali ci mën a tudd yàlla tur yi ngay fekk boroom xam-xam yi di ko ko tuddee waaye ala kulli ci jamono yonantu bi kurus gu ñuy nas mu nekk ci génn ak buum nga konte ko muy fanweeri per ak ñett wala nga fekk ko muy téeméeri per li gën a bari wala muy juróom-ñeenti fukki per yu benn manqué benn booba ci booba lim amutoon waaye nag lu ko mën a taxaw taxawaayam te gënoon a rëy mi ngi fi ci jamono yonent bi saxaaba yu bari ay saal lañ daan dajale ñi jël ay xeer dajale ko ba mu nekk ab jal ñi ciy sàbbaal yàlla buñ xëyee tudd yàlla subhanallah xëcc benn subhanallah xëcc bu ñaareel ba jal ba jeex ci ay xooxi tàndarma mbaa mu nekk ci ay xooxi tabaarakallaahu ay xeer loola amoon na boo jëlee yonantu beeg boppam nag moom bu daan sàbbaal te moo Aysa andi na xadis boo xam ne na yonent bi daan tudd yàlla ci bépp jamono bu laabee ak bu laabut tudd yàlla bu taxawee bu toogee bu tëddee ba tax na daal xaal yooyu yëpp fi daan tudd yàlla moom nag boobu tudd yàlla am ko ci sàbbaal bu ko daan def ci ay baaraamam la ko daan defee kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yadkurullah wa yaudu bi anamilihi tudd yàlla di ko lim ci ay baaraamam waaye ànd ak loolu lépp nag mosta dàq kuy tudd yàlla di wut jumtukaay yu mu koy defee déedéet ku ko daan defee ci ay jumtukaay xoox tàndarma mbaa mu koy defee ci ay xeer yooya yonantu musut koo dàq daa déedéet sax safaan ba moo fi da koo saxal da koo saxal gis na ku ko def ci kanamam mu noppi ja jëlal Tirmisi yu moo génnee xadiis bi ak xaakim ak tabaraani mu bokk ci hadiisu ummul mu'miniina sayyidatuna safiyatu mu ne yonent bi dugg na ci man sama néeg fekk ma toog sama kanam maa ngi fa jal ay junne ci ay xooxi tàndarma yu may sàbbaale boo jëlee nii la hadis bi tëddee dafa ne daqala àlaya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa bayna yadayya alaafu nuwaat usabbihu bihinna kon fekk na ko mi ngi téye mi ngi jóor ay junne junne xooxi tàndarma ci kanamam moom soxnaa yonantu bi de sàbbaalewut ci ay baaraam mais ci ay xooxi tàndarma lay sàbbaalee yonantu bi nopp ja kon kooka dàqut kurus da koo saxal ñaareel bi solo na abu daawuda ak tirmisi yu jëlee ci hadisu saad ibnu abi waqaas mu ne yonantu bi tàbbi na ci jigéen mën naa xam umul muminina dal safiyatu bintu Huyay ibnu Axtab mu ne nekk na ca kanamam ay xooxi tàndarma walla ay xeeri jàmbaraay yu muy sàbbaale nii la hadis bi tëddee dafa wax ne Abu Daawud Tirmisi yu an Saad ibn Abi Waqaas anna Rasulullah sallam daxala ala imra'atin la'alaha ummul mu'minin Safiya bintu Huyay wa bayna yadayha nuwan aw xasan tusabbihu bihinna moo tax kon boo demee ca fatawaa yi nga xam ne jalaalu diin Suyuti yu def na ko ci benn risaala boo xam ne da ko a da ko unwaanalee an man al manxatu fi subha mu tàmbalee ko alhamdulillahi wa salaamun ala ibadihi alladina stafa wa baadu faqad wasala ilaya sual an subhati fan laha aslun fi sunna fa jamaatu fiha hadha jusu loolu la ko tettee parale di ca tudd di ca tudd tabaarakallaahu ay hadis yu bëri yu koy tegtale ba rootal ca ibnu abi shaybata ak abi daawud ak tirmisi ak nasaayi ak ak ibnu omar mu ne gis naa yonantu bi ma ngay fas ay baaraamam di sàbbaal am hadis boo xam ne génnee na ko ku ñoom ku mel ni Abu Daawuda jëlee ko ca busratu almuhajirata mi nga xam ne moo ne yonantu bi salaa dafa leneen wax ne na bi tasbix wa tahlil wa taqdis dee leen taqoo sàbbaal ak tudd yàlla bu leen sàggan mukk mu wax leen ko ak rootal na tabaarakallaahu lu mat fukki hadis ak juróom yuy saxal moom imaamu Suyuti yu fukki hadis ak juróom la saxal ci téeréem bu téeréem boobu bu ma li ma la al manhatu fi subha yoo xam ne fukki hadis ak juróom yu daan saxaaba yi yuy saxal ne saxaaba yi daan nañ jëfandikoo di sàbbaal ci ay kurus yoo xam ne ay xooxi tàndarma la ak i xeer yi jembaraay nit ñi jëloon ko di ja sàbbaal yàlla. bu ko defee génne na ca Tirmisi yu ca wax Hakim Tabaraani ak lam jëlee ci sayyidatuna safiyatu mu ne yonent bi tàbbi na ci ñun ah, tàbbi na ca man daqala alayhi sallallahu alayhi wa sallam wa bayna yadaya arba'u alaaf nuwaat usabbihu bihinna arbaa alaaf nuwaatan usabbihu bihinna mu ne yonent bi dugg na ci man fële dafa waxoon rek alaaf fii nag ñeenti junne la wax ci riwaaya bi ñeenti junne xooxi tàndarma ndaw kurus ko gudd kooku de xam nga moo gën a gudd suñ kurus yi téeméeri per yooyu loolu kenn mënu koo nas di ko gàddu ñun nag comme suñ bos téeméer rek la yenn ya nekk téeméer bu manqué benn yenn ya nekk fanweer ak ñett bu la neexee téye ko dara nekkut ci dugal sa poos boo bëggee sa génne waaye nag kurus ak ñeenti junney per foo koy téye poos bu koy téye loxo bu koy téye mu ne ba mu ñëwee yonent bi ne ko yaa binta Xuyay waaw lii nag maa mu ne ko usabbihu na man dama ciy sàbbaal yàlla ah yonent bi waxut ca dara da koo saxal kon loolu tekki na ne kon kurus dara nekkut ci boo demee tamit imaamu Suyuti génne na ci xadis waxa Abu Daawud ah, ak Tirmisi yu ak Nasaayu Ibnu Maajaha Ibnu Xibaan Xaakim wéral na ko Saad ibnu Abi Waqaas demeet mu ne yonent bi dugg na daqala ma nabi sallallahu alayhi wa sallama Saad ibnu Abi ay wax ala mraatin wa bayna yadayha nuwan aw xasan tu sabbihu mu ne moom ak yonantu bi ñoo bokk dugg ci génn jigéen man naa am jigéen nga safiyatu la bintu xuyay nu axtab mu ne daal waaye waxut jigéen nga kan la mu ne nag bañ koo fekkee ma nga teg ca kanamam ay xooxi tàndarma ak i ay xeeri jembaraay wala ay xeeri jembaraay li sa li yàlla nam gën a jàppalee ca moom rek mu ne ko waxal yonantoo koy wax ne ko li gën ci li ngay wax nag wa afdal waaye li gën ci li nga war a wax mooy quuli subhanallah adada maa xalaqa allah fi samaai subhanallah adada maa xalaqa fi l ardi subhanallah adada maa xalaqa bayna zalika wa subhanallah adada maa huwa xaaliqun allahu akbar misla zalika walhamdulillah misla zalika wala ilaha illallah misla zalika wala quwata illa billahi misla zalika mu ne ko yii daal nga di ko wax te bëril ko kon nag hadis yi le dafay tegtale na da daal ci jamono yonent bi guñ nose woon ak buum nose ko bu fekkoon ne xamoon na timit siiwut waaye nag course goo xam ne per yu ñuy jóor la ci ay xeer wala ñu jóor ko ci ay xooxi tàndarma moom xamoon na yonent bi gis na ay soxnaam ak ñu ko def mu saxal leen ci waxut ci dara moo tax Suyuuti wax na ne ñaari hadis yi mu wax tabaarakallaahu dafay tekki ne kurus ci jóge jamono loolaa ci xamoon dara nekkul ci def na ko ci benn téere bu ngi tudd Tuhfatul Ubaat su ko defee tamit nag demeet wax na ko ca mu ne lenn ci boroom xam-xam yi wax nañ ne sàbbaal ci ay baaraam nag bu mënee xam te doo juum moo gën ngir hadisu ibnu Omar bi mu andi ne képp koo xam ne yaa ngi sàbbaalee ci say baaraam bu yowmal qiyaamee baaraam ya dañuy taxaw di la seede waaye nag boo ca ragalee juum ah nga wut loo xam ne jumtukaay la moo xam yooyu di jumtukaay yi nga xam ne waa Arabie Saoudi ak feneen ñoo ko defar muy ay numéro baax na wala nga wut machine à calcul baax na wala nga wut maanaam euh, euh, ak kurus goo xam ne da nga koo nas baax na ndax bu lim ba bëggee bëri boo ko defee ci baaraam rek du sotti waaye bu lim ba bëri wut nag fanweer ak yu mel noona baaraam mën na koo compter waaye téeméer ay junne boo ko bëggee def rek baaraam mënu ca dara da ngay xas da ngay juum te comme yàlla dafa tudd leen ma lu bëri waxu lu bëri si ñun de lu bëri jamoom yaay wala am sukuru laa zikran kasiran maanaam am na wadkuru laa maanaam sukuru laa zikran kasiran am na suratul ahzab waaye waaye lu bëri loola nag munu koo sàbbaale yàlla di ko takk ci ay baaraam manta ne mukk fokk nga wut kurus te nag ko doon contre tey ak mu mujj ak buur bi invité ñu ca Makka maa seetaan ci télé Arabie Saoudi bi mu def benn tabaarakallaahu benn documentaire ci wàllu aj gi ci wàllu kurus koom-koom ba muy dugal ci aj gi par maanaam eh, jamonoy aj gi yëpp ñaata lay ah, kurus di dugal la ñuy jaay ci kurus li muy jar di ko dugal ci koom-koomam aj seetaan naa ko ci seen journal bi daanaka mu ne trent cinq pour cent ci koom-koom dana ko ta dugal kon ko doon weddi course boo demee tay ba tey boo demee tey maa fekk tabaarakallaahu ca aéroport madinatul munawara ba foofa lañ embarqué ma fekk fa ay course yoo xam ne bi ma ko laajtee ëpp na soixante mille ci suñ xaalis ñu ko fay jaay am na ca course yoo xam ne kenn xamut na mu seeraay ba mënuma la koo wax kon nag ñun suñu amee suñ course yi trois mille yi lay téeméeri per fanweeri per ak ñett juróom-ñeenti fukki per mag ñi nas ko rek di tudd yàlla nga taxaw di ko weddi ne kurus kenn waru ko yore foo ko teg ak lii waaye waaye waaye waay euh, xeer yi xeer yi ñu jóor ak ay saal yu ñu tàndarma ñu jóor ko man ñeenti junnee per waaye waaye kooka boo ko nasoon tamit te taman koo yore di ko sàbbaal yàlla mbaa nga bàyyi ko sa néeg boo ñëwee di ko tudd kenn du la weddi loolu jumtukaay rek la bu ñu dimbali ko ci tudd yàlla kon kurus gi jumtukaay la amut solo la am solo mooy lañ cay def lañ cay def daal bu dëppoog sariya dëppoog alquran dëppoog sunna dara newu ci sa baaraam yi tamit ñu ne moom la yonent bi de sàbbaalee boo cay def te lañ cay def tamit dëppagul te loola dara baaxut ci mbir mi nekkut ca luñ koy defee waaye mbir mi ngi cay ca lañ koy lañ lañ cay def rek. waaye ca lañ koy defee muy jumtukaay ba dara nekku ci kon Suyuutiyu bokk na ci boroom xam-xam bi njëkk a saxal kurus wax ca wax jooja ànd ak wax ji yépp ak ahadis yim andi tabaarakallaahu terewut am na ñeneen ñuy weddi kurus ñoom tamit indi seeni tegtal aa jëlee ko ci ay asaar wanee ne kurus daal kenn waru koo def bidaa la bokk na ci euh, bidaa yi indi seen kullu kooka ne kullu muhdasatin bidaa wa kullu maanaam bidaatin dalaala def ko bàyyi ko ci moom mi yëtoom ga nanguwuñ ne man ahdasa man ahdasa man ahdasa fi amrina haasa moo ko taxsiisal ba dugal ca kurus su ko defee nag ñu commencé di wax ci lenn ci saaba yi abi hurayra ak safiyatu saali tàndarma yañ xamee woon ak xeer ya ak ñu bari ci saalihiina ku mel ni imaamu xawlaani yi ak maanaam imaam kaakis ak junayd abil muzaffar tirmisi yu samarqandi ak imaamu suqti ak qarqi ak xaafi xasan al basri ànd ak ñooñu lañ wax ci wàllu kurus yëpp ak imaamu Suyuti yooyu yëpp ak la ca Ibnu Taymiya wax naasif jëlee ko ca terewut ñoom daal ñu ngi biddaaxal képp kuy téye kurus di ko jëfandikoo indi ca wax ju rëy wane ne daal saxaaba yi mosuñu woon a yore kurus waaye ñeenti téeméeri xooxi tàndarma ku ko mën a nas ci buum waaye yaa ngi koy tiim di sàbbaal di xëcc bar benn yonent bi fekk la ca waxul ca dara waaye boo jëloon bu xoyof nas ko ci buum tamit ku ca wax dara ñoon daal ñu ne lay dëgg daal mooy la daan yonent bi di compter rek baaraam daal la doon sàbbaalee mosuñ koo gis muy sàbbaalee ci ay xeer kon nag nañ dellu ca euh, yooya loolu de mooy seen gis-gis waaye andiwuñ benn hadis de bu koy saxal wala hadis bu dàq loola gisuñ ko su ko defee timit boo daqee ne yonentu bi moom ci boppam baaraam yi la noon sàbbaalee waaye bul fàttali timit moom ci boppam ay baaraamam jël na xeer yi jémbaraay xareeb badar teg ko ca baaraamam ya muy sàbbaal xeer yay sàbbaal ci boppam xeer yi ñuy sàbbaal bu sàbbaalee kon nag wàcc na mu teg ko ci loxol Aboubacar mu sàbbaal mu sànni liñ ko ne saahatil wujuh loolu sax na ci siiraat demal ci xilaas danga ko ci fekk demal ci mbir atu safa danga ko ci fekk demal tabaarakallaahu ci yeneen i téere tamit yu bëree bëri danga ko ci fekk kon yonent bi dëgg la ci ay baaraamam la doon sàbbaalee waaye ànd ak loola lépp kat dàqutoon ñi sàbbaalee ci yeneen jumtukaay ba tax waxut ca dara lu mu waxut dara nag dara da caa niwut bu ca dara niwoon rek mu wax ca dara waxatuma wax ca dara waaye da koo saxal fekk soxnaam yore ay xeer yore ay xooxi tàndarma bu ca dara ne woon da koy wax ne ko bàyyi fi xeer yi dem suuli ko te nga jël sa baaraam yi nag yooyu yëpp dafa jar a xel te ñun ñii tey jumtukaay rek la ñu ngi jëfandikoo jumtukaay yu yonent bi defutoon ku nekk ci ñun ña koy saxal ak ña koy weddi te kenn weddi la ñun ñëpp a ngi takk ay montoor yonentu mos sa takk montoor di ci xamee waxtu julli yi jamono yonent bi nuñ daan xamee waxtu julli bëccëg takki ndeer yi ak ndëggu ya nuñ daan xamee waxtu julli guddi mooy biddiw ya biddiw yooyu ba tey mi ngi fi lu tax ñu ba ko fi takki ndeer ya ba tey mi ngi fi ak ndëggu ya lu tax ñu bàyyi ko fi jël montoor bi te yonantu mu takk montoor ñu ngi nii di ko jëfandikoo kon boo ne lu yonantu bi defutoon ku ko def lee di jumtukaay lii di jumtukaay nga ñëw di ko wéddi foo ko teg ne ku lu mu xodasi bidaa te yaa ngi takk montoor yonantu fa mos a takk ay weer yaa ngi takk ay weer yonentu fu mos a yar koll yooyu yëpp nit ki def ko taxaw di ko weddi foo koy teg jumtukaay tey yi am tey ci wàllu transport dugg oto yonentu mosul ca dugg soo bëggee dem Kaolack mbaa nga bëgg dem Touba bàyyi fi oto yi kon nga xam ne yàlla buur la de nàmm sa tànk yi mbaa nga war mbaam mbaa bax la boo bëggee dem Makka waral mbaam mbaa nga war bax la yonentu bi muy xaji dafa waroon di jële moom nga dama war a jële wala ngaa yegg màkk a nga xam ne yàlla buur la waaye da ngay dem fële jëndi billet ba ñu okkee ko su ko defee wax la ban heure ngay dem kañ ngay embarqué nga dem fekk ji loola. kon yooyu yëpp ay wasaayil la ñu koy jëfandikoo ki ji jamono te amutoon yonentu moom fii nekk ndax mos naa wax ne du nodd ay rajo takk rajo fa nga sa xew tey ña koy wedd ñoom ñu ngi ay rajo ña koy saxal takkaay rajo du ca ne yore ay jumtukaay yoo xam ne tey moom la ñuy défendre ci ay chars de combat yeeg tem ba ci ay bombu atomique tey am ci ji jamono te yàlla ba muy wax dafa ne woon booba ci googu jamono jumtukaay mooy gëlëm yeeg fas yi ba loolu la wax sa ne du wa aiddu lahum mastataatum min quwatin wa min ribaatil xayli turhibuuna bihi aduwallaahi wa aduwakum yow nga bàyyi fa yooyu yëpp di yëfe jumtukaay yooyu yëpp te taxul nga wi kenn weddi la kon nag yooyu yëpp nañ ko bàyyi tabaarakallaahu xam ne lu yaatu la lu dëggu la lu wér la dara nekkut ca soo ko bëggee weddi kon dellul jàngee alquran ca yañ bindoon ca tabaarakallaahu xànca ya bindoon ko ca der ya ak jumtukaay yooya dellul bàyyi bi sa montor bi natt ci takk ndeer yi demal seeti biddiw yi demal wari bax la mbaam mbaam bu fi lekkeeti kuddu bul fi warati mbaam bul fi bul jëfandikoo tool yooyu yëpp nga bàyyi ko fa kon yooyu yëpp tabaarakallaahu ay wax la rekk yu teguwut fenn waaye lu dëgër dëgër la suñ mag ñi fonk ko comme niñ fonkee woon màggal juddoog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu koy dàq lool te li koy saxal ne wat leer nañ ci alquran li koy saxal leer nañ ci sunatu sayyiduna muhammad saxal ko leer nañ ci waxi borom xam-xam yi xam ne kenn mënut koo dàqati waaye sax ba ak werante wa jeex na buuru màkka bi décrété na gàmm kon jeex na ba ren gàmmu giñ gàmmu fële ca màkka gàmmu ko ca madinatul munawwara amul genn gàmmu ko xumbee ni moom tey Sénégal ak li ko war xamut kon bi leen mag ñi xëyee yàgg na mag ñi dañ koy wax ne gàmmu baax na dara nekkut ci yàgg na de ñu ne alxuraan saxal na ko wax ne yàlla wax ne qul bi fadlillaahi wa bi rahmatihi fa bi daalika fal yafrahu huwa xayru mimma yajmauna suratu yunus aayaab juróom fukk ak juróom ñett muy cinquante huit yàlla nee na ngëneelal yàlla lile ak yërmande yàlla jile kuy bëgg bëggal ca loola moo gën li ngeen di dagale di ko bëggee ci ay koom-koom ci pungetam àdduna bëgg ci ngëneelal yàlla jëlee ak yërmande yàlla jël muy sayyiduna muhammad moo ko gën yonentu yàlla ngëneelal yàlla la wa kaana fadlullahi alayka azima yonentu bi yërmande yàlla la alquran ay firi alquran wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin moom mu waxal boppam ne anna rahmatun muhdatun kon nag ana lan moo gën a màgg bëgg ca juddoom ga nga xam ne ci leen jëlee indépendance te réew mu ne ña ngay jël di feetu seen indépendance te genn wàll indépendance lañu ñu am waaye ki nga xam ne moo ñu jox indépendance pire mooy ki ñëw libéré xel yi libéré xol yi libéré jëmm yi libeere xalal yi jëlee xel yi ci ak réer yóbbu leen ci xam jëlee leen ci lëndëm ak réer yóbbu leen ci lëndëm ak gindeeku jëlee leen ci lëndëm ak ñàkk dugal leen ci leer ak am génnee leen ci lëndëm ak bokkaale dugal leen ci leer ak wéetal yàlla ki la defal loola tabaarakallaahu kooku mooy ki libéré sa xel mi fuuf kooka nag soo bégut te yow yaa ngay màggal sa anniversaire di màggal sa anniversaire yi ku mën a doon nga ne kon anniversaire yonent bi kenn du ko màggal foo ko teg ñaareel bi yonent bi yàlla moo ko gàmmal ci yonent yi ñaar fukki yonent ñeent la ko yàlla gàmmal gàmmal na ko ci Ibrahima ak jaar jaaram yonentu yàlla Moussa ak jaar jaaram yonentu yàlla Isa ak jaar jaaram yonentu yàlla saalihu ak Huud ba ñooña pare mu ne ko wa kullan naqussu alayka min anbaa'i rusuli maa nu bihi bi wa jaa'aka fi haadihi al-haqq wa maw'izu wa zikraa lil mu'miniin kooku suratu Huud aayaab téeméer ak ñaar fukk yàlla ne ko yonentu yooyu yëpp maa la nekk lil seeni jaar jaar lu ma ca jublu dëgëral sa xol bi Cheikh al Islam Haji Ibrahima dafa daan wax ne yonentu bi ni matee ci ngëm mat ko ci bëgg yàlla su fekkee nettali ko jaar jaar yi ñu ko jiitu woon dana ko dolli ci ak dëgër laay ci gëm ak ci ak kóolute kon ñun ñu manqué ñii waaye waaye ku ñu dagale nekk li ñu jaar jaar yonent bi suñ cofeel ak suñ bëgg ak suñ kóolute dana gën a dëgër te lépp luy yokk ngëm di yokk cofeel rek ci yonent bi loolu def ko war na te loolu gàmmu ci la bokk kon aayaat yile mooy li ko tegtale moo jëlee hadis moo ko gën a wér hadis bi maanaam bi ko gën a tegtale maanaam dafa gën a leer namu maa wax ne moo gën a gën moo gën a wér alquran alquran dara gënu ko wér ndax mooy wax yàlla waaye nag yonentu dafa ne jox nañu ma alquran ak lu mel ni moom uutitul quran wa misla woo misla yéen mooy sunna moo ñëw di leeral alquran bu taxutoo nag sunna duñ xam alquran alquran ba alquran jeex dafa na julli leen waxut fenn tusubaar ñeenti rakkaa la naa ko wax tàkkusaan ñeenti rakkaa la amul ci amul ci sun alquran timis ñetti rakkaa la gexe ñeenti rakkaa la suba ñaar la amut ci asaka tamit lii ngeen di génnee muy rubuxul usri bi amut naa ko leeral nu ñuy xajee naa ko leeral moo tax mu ne ututul quraan wa mislahu kon bi aaya yi ñëwee wax leer na mais sunna ñëw na gën koo leeral yonentu dafa daan tànn altine di ko xoor saxaaba yi laaj ko lu tax ngay tànn altine di ko mu ne daalika yawmun man bis boobu ci laa gane si àdduna kon kay ndeke moom moo njëkk a feetu anniversaire feetoo ko ci jaamu yàlla gu ñu tuddee koor nga xam ne léppam bàyyi na bàyyi lekk bàyyi naan bàyyi jotee kon nag yow soo ko màggalee anniversaire ab yonent bi teg ko ci nam ko doon màggalee jàng alquran tabaarakallaahu joxe ñam joxoor julli tabaarakallaahu leen nit ñi wax leen nu yonent bi daan dundee ay jikkoom ñi mën koo roy waaye waaye def nga lu baax a baax loo xam ne bidaa la waaye bu doon bidaa te bidaatu waajiba la boo xam ne ñëpp ko war a def te sax du bidaa boo ko jàppoon ne bidaa sax bidaatu waajiba la mais fardu bidaa wax naa la ñaari aay yi ko tegtale wax naa la sunna su yonantu bi ci hadis bi ko tegtale moo tax suñ mag ñeneen sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ne maanaam taazimuhu bi sunnati màggal juddoog yonantu bi teg ko ci sunna yaquudunaa lil jannati wallahi dafa ñuy xamal yóbbu ñu aljanna maam alaaji Maalik wax na ko allah azimu la wilaadati xisbatan ida lam yakun naxwa alxaraami wa doolu waaye waay màggal leen juddoo yonent bi te jublu ca fàggu yool bu leen ko def ngir wut mbooloo bu leen ko def ngir daraja bu leen ko def ngir dajale po tam àdduna waaye nag bu fekkee ne raxu leen ca lu xaraam bu ngeen koy def teqale leen góor ñu jigéen ñi su ngeen koy def bàyyi leen fa discours ya gën a baaxee ngeen koy jox politiciens yi bu ngeen koy def bu diggee yéen a ko xootale yonent bi wax leen ci yonent bi wax ci diine ji bu ngeen koy def góor ak jigéen bu buñ jaxasoo bu ngeen koy def nangeen fexe ba lépp tegu ci ni ko yàlla bëggee bu ca lu xaraam naree am baleen ko loolu la wax moom waaye lu xaraam sax léeg-léeg tabaarakalaaw nga xoote lu baax lu baaxul ñëw rax sat du tax ñi ba ko waxin la xaj màkk gee ñu woote tey yàlla woote ko ibrahima ci làmmeñu ibrahima wa adin fi naasi bil hajji yaatuuka rijaalan wa ala kulli daamirin yaatina min kulli fajjin amiq ñaataa fii dagg bi te fekk dañuy moye yàlla ñaataa fay sàcc ñaataa fay agressé ñaataa fay def yeneen ak yeneen waaye lu tax ñu bàyyi xaj boroom xam-xam yi dañuy wax ne te Maam Alaaji Maalik ci la bokk dafay wax ne xiiwu rëy rëy rëy lu tuuti ci xiiwati bu ko raxee lu tax ñu bàyyi xiiw wa mukk kon nag nañ ko jagalaat rek fexe koo defar te xam ne tamit tabaarakallaahu loola nekk na lu dëgër a dëgër a dëgër ci nekk lu dëgër a tabaarakallaahu ci sunna euh, wax naa la ko waaye booy weddi gàmmu fee eh, demal laaji abi jëhlin demal laaji ko demal laaji abi lahab abi lahab mi nga xam ne ah, ba mu génnee àdduna xabaas da ko gis ki nelaw ne nu sa borom def ak yow mu ne ko fudd na sama ndigg ba may bëgg a dee lu dul nag bu bisu gàmmu jotee rek dafa may génnee safara ma nekk ca tuuse muy balal soo ki samay baaraam foo ko jëlee mu ne maa bëggoon ki juddoo yonent bi ma màggalee ko goreel ab jaam sama jéebee kon ma libéré ko muy sooy batu moo tax tamit bu jotee rek mu libéré ma ci safara kooka xam nga bu sañoon bis yëpp di gàmm fa bi taazimihi amaanun bi salaa mi wa busra atat bihil anbaaw la maam xalifa wax kon kooka bu sañoon lépp di gàmm kon nag tabaarakallaahu ñooñu d'accord nañ ca borom xam-xam yu bëri kon wax naa la ko maam Alaaji Maal nee na gàmmu baax na nañ ko def Serigne Touba d'accord na ci Cheikh al Islam Haji Ibrahim d'accord na ci maam Khalifa Niass d'accord na ci imaam Qastalaaniyu borom xam-xam bu mag dagan na màggal juddug yonent yi mun ne jawaasul ixtifaal bi mawlidi nabi mimma huwa masruun loolu la wax loolu la gëm kon mu mu jël maanaam dagan gi takkale ko ci hadisu Buxaari bi. ci bu mu indi ci buntab ah, maanaam janaïs ci tabaarakallaahu ci buntab janaïs ci nekk ak Abubakar Siddiq mi doon bébét dee ca ban bis la bëgg a dee mu ne bis bi yonent bi gën a ci àdduna wala Abubakar ngir màggal juddoo yonent tax na mu ne man dee bis yëpp baax na mais bi ma gënal su ma sangoon bis bi Sayyiduna Muhammad gënee ci àdduna laay koy ji sama borom moom imaam Xastalaani ci loolu ci la tegtaloo ba dem ci Buxaari da ko ci fekk ba ne gàmm lu baax la lu ñu war a def la kon xam nga ne loolu lu wér a wér te xoolal ko ni mel ci xam-xam kon nag ñu moom moom d'accord na ca ne nañ koy def su boobaa nag ña koy dàq tabaarakallaahu imaamu sawkaaniyu daga d'accord na ca naylul awtaar demeet ñi ko wax ñooñu kenn xamut ni ñu toll kon nag tabaarakallaahu nañ ko def te lépp lu cay lu bokk ñu dugal ko ca lépp lu ca bokkut dañ ñu koy jamee nañ ko bàyyi baaxut loola tamit nañ ko bàyyi nañ teqale góor ñaak jigéen ña nañ jël matukaay ba nañuy fexe ba ñoo gàmmu fexe lu luñ laaj gouvernement war koo def ci wàllu ndox ma wàllu courant ba matukaay ya nañ ko jëlee ca matukaay ya fay ñëw tamit ñu fexe ba ñoom ñëpp gàmm gi tax na a jóg ñu leen di vérifier ba yenn caaxaan ya cay am bu mënta am tamit dana wàññeeku waaye tamit buñ ne gàmm ki lañ wax ñu ne guddi gi yonantu bee ko moom waaye buñ ko xootee ci jëm ci jumbi yonantu bi nit ñi xuy suñu ca ñi cay sédd yonantu ba nañ jël lépp jox ko Seydunaa ma waxtaan ci dundam ci ay jikkoom ci tabeem ga maandoom ga ragal yàllaam ga mën a jaamu yàllaam ga su bëgg ay mbokkam ya mën a dagg képp ku ko jokk ñu mën koo roy su ko defee kon nag yooyu yëpp buñ ko ci defee yàlla mën nañoo dimbale kon suñ mag ñi làmbatuwuñ diine dañ koo daj moo tax lépp luñ ca jëf duwut luñ leen askanee waaye lu wér la ñoo ko jëf rek boo toppee tànk yi rek lu wér wér lay doon lu am sëslaay ci alquran am sëslaay ci sunna am sëslaay ci waxi borom xam-xam yi kon nag tabaarakallaahu boo ma toppee suba ci waxtu wi ci kartanal yàlla ma sof ak yow li ma sosoon ak yow wa axiru daawaana an alhamdulilah rabbi alamin wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu